asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum adduna bi maa ngi sàkku ci yéen képp ku jot sama audio bii nga partagé ko ndax dara taxuñoo jóg lu dul waxtaane suñu réew dara taxuñoo jóg lu dul def jàngat ci ci ni suñu réew di doxee actuel ni suñu réew di doxee mooy ku nekk xam na ni démb dañ doon installé assemblée nationale quatorzième législature lañ doon installé démb biñ koy installé kenn ku ne gis na pëcc xoo bi am ci biir ensemble xamatuñu ba ñu réew la ñu nekk xamatuñu ñan lañu ñu tàndoon yóbbu leen suñu pencu ndaw réew yi nga xamante ni fa lañ ñuy kaasalee lépp lu jëm ci Sénégal xàmmeetuñu ko ngay gis ñii di xeex ñii di saagante ay ndey ñii di jóg di taxaw di yéeg ci ay kaw taabal ñii di daj ay chaise ñii di jël ay micro di ko lem di koy yàq ñii jël toog ca kaw table ya frankulaayu may laajte ban réew lañu nekk ñooñu ñoo doon taxaw ni dañuy woote rupture ñooñu ñoo doon taxaw ni senegal bu bees la bëgg ñooñu ñoo doon taxaw ni dañuy wàññi bit wu senegal ni muy fonctionner dafa bëri dañuy wàññi frais yi bit sewu senegal di génne tey ñooñu ñoo taxaw ni dañu soxla trois président groupe parlementaire ñooñu ñoo taxaw tey di xëccoo nekk président assemblée ñooñu ñoo taxaw tey di bloqué ngir ñu mën leen a fal ñu nekk président assemblée ña doon wax naan nit ki ci réewam warute jiite ñaari fonction tey jii gis nañu ñoom ñu ëpp ci seeni député ay député maire lañu maanaam ay maire lañ fa ñu nekk ba pare nekkat ay député ngeen gis ki nga xam ni mooy maire de la ville muy maire Dakar di Barthélemy Diaz ni ñu ko nawee woon ak ni ñu ko fonke woon mu wàcce boppam bazar de personnalité bazar de dignité bazar de li nga xamante ni moom la sénégalais yi amoon yaakaar ci moom tey ji mu doyadil boppam xeeblul boppam di poqati ay micro di sànni di poqati ay micro di damm bu leen toppandoo ki nga xam ni naturam mooy yàq mooy tasaare mooy yàq lu baax mooy fekk lu rafet mu ñaawal ko tilimal ko salteel ko ba kenn du ko bëgg a gis muy Guy Marius Sagna mën damay cité bokkuma ci chroniqueur yi nga xam ne dañuy waxtu duñu citato man duma Jean Paul imagineel sëñ Cheikh coro bi nga xam ne Mbàkke Balla Aysa dëkk Touba di doomi dëkk bi tey ñu dem di ko gis mu yéeg ci kawi table ba yenn ci commentaire yi bëgg a jaare foofu yàpp murit yi naan xoolal tànk yam tànk yu weexeat xool leen luy lang ca ko place bi laa bëgg a leneen ak leneen imagine leen kàddu yooyu noonu tey sëñ Bass Coro xame la woon ci loolu dellul place ba nga nekkoon dellul ca na meloon démb bu la kenn yàq te bu la kenn changé ka lii nga xamante ni ci lañ la bëgg a dugal mooy ka jéem a toppandoo ñoo xamante ni ba addunay tukki doo yem ak te doo bokk moom soo gisee nag ma yóbbantele kàddu lii da ngay sama mbokk mbokkum dëkk bi nga dëkk Touba ma dëkk Touba ngay sama mag loolu moo tax ma am kàddu yii di la ko wax ngir ndénkaane di la waxaat tam bàyyil xel ni Touba nga dëkk te lépp loolu la nit mën a defal ci àddina li la sa maam defal daf ko ëpp bàyyil xel ci loolu beneen ba ca des ñi nga xam ni ñoo doon wax naan Sénégal li ñuy bazar bi dafa bëri tey ñu ñëw gëm loo leen ni leen ñetti président groupe parlementaire lañ soxla ca parlement bu nekk ak fonction la muy fonctionner mandaawam dina am deux voitures dana am euh, bureau secrétaire am dana am mille litres carburant dana am ab euh, ligne téléphonique dana am secrétaire am lépp mu war a am ak ay indemnité ñu koy fay 2 million par mois lu bokkut ak salaire u député bokkul ak ay indemnité yi ñuy am ci biir ensemble kon dama ni ñun nañu taxawaat ci suñu biir ñoom foogoon naa ni consensus bi ñu doon wax ñoom danañ ko def ci seen biir waxtaan dajaloo nekk benn ba lii nga xamante ni si moo fa am du fa am comme dañ ne dañoo am gëm-gëmu ànd naxuñu sénégalais waroon nañoo mën a am benn président groupe parlementaire comme ni ko Benno Bokk Yaakaar amee benn président groupe parlementaire dama ni bu nax sénégalais yi nañu bàyyi sénégalais yi ñuy diaboliser ca na leen leen ñii ma gis biir assemblée wu assemblée rek lañ leen denk ñu perturber sénégalais yi tas yaakaaru sénégalais yi bis bu ñu leen dénkeem réew na leen leer ni ci sénégal gu tasaaroo ci sénégal guy yàqu ci sénégal guy xeex suba xeex ngoon ci la ñu nekk dëgg la nag butéel la mu def loola la saañ ba di xeeñ ñoom seen butéel la mu def xeeñ na xummi ci saañ bi ba sénégalais yëpp gis ko kani ki ñu bëgg ni mooy war a nekk seen président na mu mel ñoom ñi nga xam ni ñooy ay ay ay ay noonu la ñuy mel ma bàyyi leen ngeen def